Sambulannya lagi, Sambulannya ilaj. Samo si so la nilać. Saya

di la wax ne déwénati. waaw déwénati ñu ngi bokk a fekke déwén ba léegi mhm. te ah, ñu ngi gërëm yëpp di leen seen teewaay bi na ma. Mhm. du waaw <laughs> waaye nag xam nga rek. comme mhm. ñu def ko mbaax ak ISRA waaw li nga sam seen rafet na trop. Ah, bii bii baax ah. bii fu jógee. bii day moom. xanaa sa benn biir bu baax moo la ko jox. waaw su ma géer bu baax moo ma ko jox su ma géer bu baax moo ma ko jox mm-hmm. am na am na géer yoo xam ne bëgguñ ko leen tuddal mm-hmm. waaw ah mbokk yi nii rek lañ koy defee comme niñ ko defee depuis si suba ba tey di duggaat si kër yi di siyaare am na ñi nga xamante ne suñ leen tànnee dañ war a ñëw si ñoom parce que su dul dara sax am am na luñ defaral Gambia ah, parce que ñu ne woy bu yeetewul jàngalewul foofu nekkatul woy am Sambou Suso nag ñu gën koo xamee ci woy am woy fi lu am solo woy na fi ay mbindaan lu jaam woy na fi woy yu bëree bëri am yi nga xamante ne eete na te baat bi neex kar macha waaye dañ ko gëj a dégga ah, te artistes yi xam nga soo leen gëjee dégga danga leen di seetu seet si lu ñuy yëngu ah, seet seen kóona luñ fa nekk. ma ne loolu dëgg la di ñoro soo ko waxee dina ma neex. ah waaw di ñoro. di ko ya, def every julli di ko def tabaski di def weeri koor mm-hmm. ñuy siyaare ji nga ministère yi lañ am celebrity si lañ businessmen yi lañ ñi nga xamante ay borom na mba lañ ci dëkk bi def lu baax ci dëkk bi ate dafa ñu leen parce que def lu am solo si dëkk bi am ñu nak nag sàmbu gis laa dégga lool ñu bugg laa laaj si lan nga nekk balaa loolu rek ak mbokk yi rek ok ah, falñi fiite nanekal mane torop torop torop may jirona koy gambe di nuyu suma yaay di nuyu suma waajur yëpp ya, daal di gannaaw ma sant yàlla sax naa sant yàlla jika alamin mm-hmm. ah, sant yàlla bu bari teg si gërëm mm-hmm. ah, suñu waajur yi sing suñu njiiti gërëm mm-hmm. mboolem ah, julit ak képp ku dul julit sax na gambe moom dafa ya. neex macha allah ñuy gërëm ñëpp di santai. yéen itam leen gërëm seen teewaay xale ngeen yal na leen yàlla dafay kilif. ah ñun fii Samb Sow daa mun fii. xam mm-hmm. nga ah Samb si loo nekk mun nga ñoo wax ah, bi fi ma yeewoon Saal ah nii boobu Mbinaan Jambe ah mu defoon lu bari si société bi ñëpp di ko daan wéy yi di ko wéyandoo jamono boobu sax man maa ngi gën a nekk xale. waaye mu nekkoon wéy bu ma neex am. ndax ah, la inspiré woon ba nga wéy wéy boobu noonu ak wéy boobu noonu lan nga ci jëlee. waaw ah, mi naanu jàmm nag moom daf it toon mhm. mi naanu jàmm la bii kéew lee dañ ko trop trop mhm. waaye tam maa ngi am bu war a ñëw mhm. léegi tey incha allah maa ngi def ay sons am na boo xam ñu doon naa figiya comme naa fexe xam nga aka kala woon tuuti waaw acca naa figiya ma mbete ya naa figiya ma mbete ya naa figiya ma mbete dafa bàyyi wuy because ah, dañ demoon benn time bi nga xamante ne sa wuyu daanaka ñu ne danga ko jigleel politique beeg yooyu noonu mm. ah, di toppa Yaya Jammeh rek xam naa ne Yaya may xaalis ma waay la waaw wax dëgg am naa ko gërëm nag dem nañ sax na la fi pour nga génne album nga lekk xaalis bi <laughs> ndax loolu nga xam ne parce que fii ñun Gambian Talents dañoo leeral rek non Yaya Jammeh may na ma xaalis waaye sax Yaya Jammeh may ma xaalis pour ne album Yaya Jammeh dafa demee xaalis mm-hmm. ci coobareem mm-hmm. mu nekk dama ko woy mu nekk mu ma xaalis Mm-hmm. waaye duma demal ne sa xaalis li nga ko def wala li nga ko def non non yaa ngi soo ko wax ne lekk naa xaalis album album def naa album mm-hmm. génn naa benn album génn naa beneen album waaye album comme ni ko waxee mm-hmm. dafa dem ci woy yaaya Zeynab ak Fonding Kélo yaa ngi dégg mooy second album bi yaa ngi dégg xam nga Fonding Kélo yaa ngi ko doon dégg Fonding Kélo leen fele Fonding Kélo leen fele Fonding Kélo leen fele ni Gambia Fonding Kélo yaa ngi dégg ah, ok boobu génnoon na waaw léegi man album jëgala na waaye naa génne maa ngi si maa ngi génne loolu tamit li nga concentré doon si muy politique bi moo tax Yaya Jammeh dem rek am kenn déggatul dañu toog benn taay. te saamu nag waaye soo ko seetloo baat bi neex na lool. Mm-hmm. ah waaye fooguloo tamit léegi da nga war a génn ci affaire way politique. léegi te non non fi mu nekk non non government bi taxaw ni tamit. non nga wéyal leen génne leen. non fi mu nekk déedéet déedéet fi mu nekk dama bëgg concentré ci sama musique. Mm-hmm. yaa ngi dégg because politique bi daf te am na fu mu dee sonale artiste tuuti. yaa ngi soo loolu la dama bëgg a génn ci politique moo tax bi lii amee ba tey kenn déggu ma wooyu ma Gambian Talents dañuy leeral lu nekk moo tax ñu ñëw am pour leeral ak yow waxtaan ak yow parce que géej nañ laa dégg te Samba baat baan fa léegi ni leen fi woy nii rek am mu nekk li ama am solo sa fans yëpp am toog di la xaar te xam ne yaa ngi denc yu bëree bëri maa ngi ci album sax maa ci album ci projet maa ci projet fi nekk nag right now parce que ñu ngi dugal moom about am na apart from man li ma defal moom suñu bopp comme nafkee bi sa bopp su boobu am na beneen tam dindingol alpha lu buña am na beneen bopp naka duniya ma yɛlɛma mɔlu duniya mɔlu le yɛlɛmata duniya ma yɛlɛma mɔlu duniya mɔlu le yɛlɛmata sabatilo ba ɲamale duniya mɔlu le yɛlɛmata alalakaro ba ɲamale duniya mɔlu le yɛlɛmata tilo ka bɔ dama kɔnɔ a ka bɔ yele bi tilo ka bɔ dama kɔnɔ a ka bɔ yele bi o ka fɔ mɔlu ye ayi ka mɔlu kɔ ma. su ma ne muru kooma nekkul rek muru kooma dellu gannaaw la waaye dellu gannaaw boo xam ne la ñu kes ko suñ kilifa yi mm-hmm. suñ maam ñi kay seen ñu daan def féetali waaw yaa ngi gis mm-hmm. waaw may partage di nuyu parce que xam na njiiti réew njiiti réew la mm-hmm. naa nuyu baro tam ak famille waaye tam du ma fàtte Baba Jawara tam ak famille du ma fàtte Yaaya Jammeh ak famille xam nga waaye maa ngi gërëm nag maa ngi nuyu ñëpp nag xam nga sa diggante Gambie artiste parce que gis nañ ne bi nga door am nga fi collabo ak ak ki nga xamantene moy mooy Firki Diop ñoom Jali Ba Kouyaté am artistes yooyu ñu ngeen amoon kóllëre seen digante am mu nekkon lu nice lol right now ñu sa digante ak artist ñu sama fa demé su ba diggante artistes yi waaw mu ngi fine xam nga aar na moom du ñëpp nga dem na demal way tam du ñëpp ba dem na amal tam problème mm. aw ma ken problème man na pour man aw ma ken problème man ay na ko am si problème mm. ay wa dëgg yalla man day man aw ma ken problème. Gambian music ci bu ngeen dem. musique bi waaw parce que xale yi léegi ñoo dañoo liggéey baax na ñu ngi try trop kon di gën a ñu ngi push tam soo xam maa ñun mi noppee moom rek ñoo war a ñëw rek di fi gën a joolee bi dañuy laaj newenal waaye xam nga ñu ma pare na ñëw si beneen tam comme xam nga dëkk bi fi mu nekk nii affaire yi tribalisme bi mu ngi lëmbee réew mi booy mm-hmm. naa ci boobu tam ngole nyindomu akoleti osiya alinganasi ganimu kilimetiyo patang afatanfans ci woy bu yeetawut comme ni ko waxee jàngaleetu te yéen artistes yi problème yi xew si dëkk bi am yéen a ko war a wax parce nit yaa ngi déggee si yéen di la wax ne kontaan nañ trop ak mm. pour ñëw fekka si la parce que dafay baax certains artistes yi ku fàttaliku ko démb doo fàttale ku tey te yéen ay démb yéen ay tey mm. kon nag nuñ la siyaaree seen nii kontaan nañ si ñëw rek laajte suñ ndewenal comme que dañuy war di dem si kër yi di laajte ji ndewenal ñu ne yow ñu ñëw siyaaree la rek one minute still now

may wax sa last word waaw maa ngi nuyu suma fans yi nuyu suma friends yi nuyu suma géer yi mm-hmm. nuyu naa géer yëpp mbañ jaatiyoor bee kontoon na mbégam bee bee kontoon ñu nuyu naa leen mm-hmm. pa os tam nuyu naa ko meel benn acapella bu nekk Gambian Talent Promotion ah Gambian Talent Promotion ok xaa ma jox leen acapella bu neex mm-hmm. Gambia talent nasa Gambian Korio Ani mo jode Oh yeah yeah yeah Gambia talent nasa Salud, Salud, Salud, Salud, Salud, nga rek am dañ leen koy defaral am yow nag géwél nga kenn du wax ne lan lan la yow na taamu ci dal waaw nga taamu si si si soose saasu soose am bu leen ma jooma naka la sa fan saa ko laajte mindaan du jam mindaan du jam mindaan du jam mindaan du jam mindaan du jam daan sa doole la bu añ bi najee ñu ne mindaan bi la bu nit bi najee ñu ne mindaan bi la bu reer bi guddee ñu ne mi naan mi naan day sànnoo dafay daan dooleem day daan dooleem day daan dooleem day naan mi daan daan sa doole la day daan dooleem day daan dooleem mi naan mi daan daan sa doole la ana ñu ne kat ñu ngi nii daan dooleem day daan dooleem mi naan mi daan daan sa doole la day daan dooleem day daan dooleem mi naan mi daan daan sa doole la day daan dooleem day daan doole yi daan du jaam daan sa doole la yërëm ko sama yaay yërëm ko yërëm ko sama baay yërëm ko yërëm ko doole la ok nii la rek. dina ñëwaat dina ñëwaat dina ñëwaat yow foo ma invité rek. full soo waaw loolu nga war a def waxtaan bi nga dafa gàttal dinaa la invité suñu show bi. amul ban problème ma Bambalo bi ma lay def. ak artiste yi. ok su ko defee projet. ñu wax lu bëree waaye di la wax ne kontaan nañ ci am na si suñu ndewenal show bi trop am di la wax ne sa fan si seetaan tamit. Mm-hmm. am kontaan nañ mbokk yi lii ne lañ leen amal wax naa leen ne fépp fuñ leen promise ne dinañ fa dem rek su soobee yàlla dinañ fa dem xanaa kay ñu jokk borom amuñ ko. comme ni ma lañ ko waxee ñu ngi waroon a dem fi nga xamante ne mooy kër imaam Thierno Ka ñu ngi waroon a dem fi nga xamante ne si mu xamee Ndaw la waaye soo gisee demuñ ci place yooyu am tey dëj bi moo tax ki nga xamante ne mooy woon former Lord Mayor bi di laay ba am di ko jaale ah, di leen wax ne loolu moo tax demuñ foofu noonu am ki nga xamante ne mooy ci leen saar tamit am moom itam ñu fa waroon a dem tamit damuñ fa dafa am gàllankoor waaye mun ñu may ko ba tebes Tabaski dinañ fa dem ki nga xamante ne mooy Seykouba Diadio dem ñu ngi fa waroon a dem demuñ ko am place yi ñu war a dem yëpp soo gisee demuñ fa rek am dafa am li nga xamante moo tax du ci ñun waaye bu soobee yàlla su ñëwut weeri koor dina ñëw Tabaski am lii la rek ameen salen promotion ñu ngi rek pour bégal askan bi te yéen tax a jóg Samb jërëjëf. jërëjëf kontaan naa jërëjëf. Samb ndaanaan la. waaw waaw ndaanaan la. kii ndaanaan la. waaw waaw ndaanaan la. Samb jërëjëf waay. jërëjëf jërëjëf.